gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi ay jamii'an wa laa tafarraquu wazkuruu ni'matallaahi alaykum iz kuntum a'daa iz kuntum a'daa فألف بين قلوبكم ربكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون به وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم واختلفوا من بعد ما جاءتهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ففي رحمة الله وفي رحمة الله خالدون صدق الله العظيم ما شاء الله سيد محمد فادل مبكي إن الذين يتلون كتاب الله يتلون يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلا سرا وعلا تبوك ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من كتاب والحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة يحلون فيها من أساور من ذهب من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حريق وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار تلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصوف نسرت وإذا السماء كسدت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة لفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالقنس الجوار الأنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يا فسواك فعدلك في أي سورة ما سارك كبت صدق الله العظيم وفي معجال الأسر أبو زيد والأسلام باب العلوم والعطل أبو سرافي أنجمي وفي موجال الأسل أبو سيد الأسل باب العلوم والعطل أبو سرافي أنجمي xad xaama xayrul basari wa saxiyaari sumare ila sawil tangamuri kal badri wa san jumi def leen ni ñu màggal sayduna muhammad yaman bi sadani daal يوما بزدل تال يوم تعرف الرجال يوم رداء والوجم يوما بزدل تال يوما بزدل sadani taal yamata rufi rijal yamarida wal wajmi yaman biya xarxafara suno baamal xarxadaral xida تمم يوما بي خرخر ولا ذنوب من خرخر درا خدال رب الورى كبيرة كلمم وخرت له من خنا وموسى في وصوفا توبا سندال بين جبال سمن عامل سمال خيل وجند العاصماء إلى الرئيس الكرماء بسرا بقلت الوهم أحمد رب لنا بجند أملاك الأولاد لا للسان أرض سوي الدم وفي موجال الوصل أبو أسيد والذن باب العم الحدل أبو سراف الجمع وأن يقود للنبي في عبد من عبد من المخربي بالانتياء والمندمي ñoo ngi jégalu sëñ Xaadim lii yàlla xam na ni li nga xasa tudd suñ tur rek moo waral ñu yëkkati bay di waaye nin ko waxee fii am njàng indiwuñu fi sëñ Abdou Lahad mi moom jëmm ji yàlla baaxal la bu yàggul rek ñëw naa fii am tur tànk bu ñu doon defal benn anniversaire maa ko doon jàngal yàlla xam na la mu doon ku baax kon ñoo ngi lay ñaanal liggéey bii nga nekk yàlla na la sëriñ bi taxawu Ah, di ñaanal baax sa waajur wi moom it daaw ñoo ko bokk yendu fii ba ngoon kon ñoo ngi koy ñaanal ni sëñ xaadim ñaan rek ñoo ngi ñaan déwén ñëpp teewaat ci barke xasaayit nekk yàlla na yàlla yokk wér gi ak fan yi ba ñu ñu fi tase ay ate ate yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def Abdoulahat nag dama koy gërëm rek di ko sant si respect bi mu am si man a chaque fois buñ ñu tasee si cérémonie bi mel nii dama koy wax parce que loolu la ma won jour yi rek la ñëw sama kër jox ma carte d'invitation ma ne ko bu soobee yàlla danaa teew loolu laa def di ko ñaanal nag lii mu ñu defal ci cité cour suprême indi fii internat bi ba suñuy doom man fi jàng xam fi lislaam jàng fi alxuraan loolu rek dañ ko ci sant ñun nag amuñu sa pay yàlla rek moo am sa pay yàlla mi am pay yàlla na ko yàlla fay ñii nga xam ne nag ñooy soxna yi te seen doom nekk fii si daara ji ak seeni set lépp luñ séntu seen doom yi yàlla nañ ko fekke yàlla nañ fekke seen jariñ yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def vraiment alxuraan di njàng fii aussi njàngin wu sell ba nit ñi sa ñeneen ñi sax seen xol tooy loolu du na du si weeru sell wu yàlla yàlla rek moo am pay yàlla nañ ko yàlla defal lépp luñ fi ñaan yàlla nañ ko yàlla nangu bu ko nangu loolu yàlla nañ ko jariñoo vraiment sëriñ Mor Sy daal kii di laxat dañ koy ñaanal rek parce que cité yi bari na fi bu indee internat fii nag ci cité cour suprême alors njariñ yépp site yi wër cité cour suprême yëpp dañ si jariñu ñun nag ñoo si ëppale parce que lu luñ fi ñaan it waa cité bi dañ si danañ si am danañ si am njariñ dañ si gis seen njariñ danañ si jariñu <coughs> di ñaan rek yàlla weeru koor wii ñu ne lépp luñ si ñaan yàlla na ko yàlla nangu bu ko nangoo yàlla nañ ko jariñoo yàlla bu mu nekk suñ mujj koor di ñaanal euh, mbooloo mi yëpp di wax Abdoulaye rek waa cité course yëpp ñu ngi lay gërëm di la sant vraiment di la ñaanal yàlla nañ ko fekke di ko fekke di ko fekke ay ati ati at yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def sëriñ Mor si kàddu yi laa ne woon dinaa ko si sànni di leen gërëm di leen sant cant ak ngërëm jërë ngeen jëf jërëjëf bismillahi wa huwa rahmanu wa rahimun qaadil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana huda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zabin wali wali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki lislaam ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a rafet di am mbégte bu baax ci ànd ak yéen bés bi xam naa ne sax ay ay ay discours la woon waaye xam naa ne dañ mujj tëxëñ lépp rek ndax guddi na te suñuy kilifa dañu fee toog te toogaay bi yàgg na di jiita ci nuyoo bi euh, suñu waaju de di sëriñ Mouhamadou Sy xasida moom mi nga xam ne fépp fu ñu àgg wala lépp lu ñu am mooma ndax mooñ ci yar nàmpatal ñu bu jàllee ñu teg ci suñu waajur sëriñ sëriñ Modou Ndiaye moom mi nga xam ne mooy xalifa El Hadji Mota la Lambaay waaye it noonu lañ ciy tegee sëñ Ngombaan Jonn suñu bàyyi moom tamit di suñu soppee lool loolu la yàlla def waaye it di nuyu délégué de quartier monsieur Abdoulaye Seck mi nga xam ne wax dëgg yàlla maa ngi fi bëgg am ñeenti at waaye la saa yi mooy saa yi mooy taxawal bis bi dañoo ànd kook man maa ngi koy sant bu baax ci taxawaayam ndax ni ko suñu Xaadim waxee léegi moo fi représenté président Diomaye fay ndax euh, ndax euh, délégué de yi dama koy wax ñoom liggéey bi ñu am ci quartier bi na moom muy liggéey yu metti yoo xam ne wàcc sur le terrain di gis yoo xam ne sax kéemaan la waaye du tee ñu jàpp li ñuy jàpp di jëf di jëfal euh, quartier bi ba dangay ngay jékki sax gis làmp bu tàkk sax fekk ne moom mii moo ko dox ak association ñi muy àndal def ci liggéeyam gu am solo kon ñu ngi koy ñaanal bu baax ndax kàcce bi leer nañ waaw kon tey su ma su ma toogoon ak président loolu laa koy seddeel waaw sëñ Abdoulaye Seck mate na liggéeyam di ñaan yàlla yokku fanam yokk ko wér mu yàgg fekkee lii noonu lañu jàllee su ci ñu bàyyi fi ne Euh, ak suñuy mag yi fi ne suñ sama mag yi nag su ma ko waxee mooy su ma ci tuddee sëriñ Mouhamadou Moustapha ñi nga xam ne moo fi kilifa euh, di suñu mag ginnaaw suñu waajur ak kilifa yi fi ne muy tëj jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu jàll ñu ko mboolem suñu rakk yi fi ne ñëpp rek dañuy bañee tudd tur di juum bu loolu jàllee it bis bi dafa am ñu ko moom. bis bi dafa am ñu ko moom muy xale yii muy bisu alxuraan it ñu am ñu ko darajaale waaye it di ci rendre hommage ñoo xam ne dañoo dañ leen a fonkoon lool ñu doon ñenn ci ñun buñ ci buñ ci limee ku ci mel ni sëriñ Malick Abdourahim Dem di xaar incha allah rabbi sëñ bi joxe dog ñu ñaanal leen suñ suñ ci cité ku ci mel ni sëriñ Malick Abdourahim Dem waaye it suñu bàjjan soxna bu sa yaama si ak njabootam teew fii sëriñ Malick it ak njabootam mi ngi fi teew soxna Aminata Dem euh, mu ànd ak sëriñ Moustapha Sy Kamal waaye it suñ suñu waxee soxna bàjjam bu sa yaama ay ak njabootam ñu ngi fi teew su ma jiitalee sëriñ sëriñ sëriñ Mourtada Mbacke mi ngi teew mi ngi nële ànd ak akam sëriñ Lamine Mbacke waaye it soxna Mame Diarra Mbacke moo toog ne moom it ci waaye juróom li mu ko jaral jóge ko ba Touba ngir bés bi ñu am mbégte lool ci loola Euh, bu loolu jàllee it sëriñ Ahmadou Yàlla ñang mi nga xam ne waajur la woon ci xale yi bëggoon internat bi lool ay doomam di fi jàngee ba léegi moom it wàññeeku woon ñu war ko rendre hommage waaye it noonu la tuddee soxna maam Mariam si moom it ci kër gi la bokk waaye it ak soxna Njaxat Kamara di ñaan yàlla sëñ bi joxe dog incha allah ci kanam ñu fasaali leen ni ma ko waxee sànq rek suñu yaay yi fi teew buñ ci jiitalee soxna Aminata si euh, di suñu yaay bopp ndax man damaa bëri sama yaay bopp fi ne ku ci mel ne soxna tànk na Fall mi nga xam ne sama yaay sama yaay la lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mu doon kenn ci man ma am cofee ci moom lool mu yaayoo ma lool ma yaayoo ko lool bokk mu doomoo lool lu ma nekk mi ci lu ma nekkul nekku ci ba tey jii doomam laa jëlee bis bi tuddee ko pare ne ko muy suñu xaadim kan dama koo def ngir lu bari moom mu ñëw teew depuis ci suba ko looyee jotaay bi ànd kook ñun ñu ngi koy sant bu baax di sant suñu yaay soxna Aminta si moom bàyyi ko ba Touba te ni ñu ni ñu mel mooma suñu waajur amuñ seen fay ni ñu mel ñooma ñoo ñu jàng alxuraan yar ñu ci diine tatagal ñu yëkkati ñu teg ñu ci yoon ba tey jii ku ñu bëgg ku ñu jaxasool nga naw ñu dañ dañ leen koy sante waaye it noonu lañu sante Euh, suñu yaay soxna Daba Sow moom it tabaakàlla di suñu yaay bopp nekk ci kër gi yërëf xale yëpp yërëf ñu ñëpp dëgg yàlla yaayu ñu lool moom tamit ñu ngi koy sant bu baax ci teewaayam ak mbooleem ñi mu àndal ci délégation bi bàyyiwuñ kenn gis nañ ko fi léegi ci jataay bi di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci njaboot yàlla defal ko waaye it noonu la ñuy nuyoo euh, soxna Mame Mbasso mi nga xam ne mu suñu Abdou Karim moom mi nga xam ne li muy doon mag lépp suñu maam day jug di di soldaalam na ma kaa ñu dem ba boole diw mu jàpp ci bis bi ku xam rek boole na kook man ànd ko suñu Abib ñang mais mu suñu Abdou Karim suñu Abib Male nga xam ne jug nañ dem fu ne foo xam ne moom mii moo fa moo fa joxe ndigal ñu àgg fa te ñooñu ñëpp dañuy jàpp ci bis bi kon bés bi bu buñ toogee nii solu gaa bu muy rafet rek am na ñu jàpp ci suuf ndax ñun ñun yooyu ñu suñu nelaw doyul waaye dañoo fekk dañoo am suñuy yaay suñuy bàjjan suñuy maam suñuy bàyyi suñuy mag ñoo xam ne ñoo ñuy jàppale à chaque fois bu ñuy taxawal bis bi ñu ñëw dooleel ñu ndax lii nii xaalis a koy def alxuraan defu ko de lii xaalis koy def xaalis te loolu noona doo ko wax te tuddoo njabootu El Hadji Mortala Ndiaye Lambaag yëpp ndax ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ñoom ñoomam daara ji ndax euh, seen waajur lañ ko dippee waaye boobu ba léegi ñu jàpp lool fu ma nekk ñu nekk ci fu ma ci toll ñu toll ci bis bi moo ko jàppee ba léegi ginnaaw bu ma demee kër Baye Modou fu mu ci toll rek dana ko yëg mu ànd kook ñun ba nii nii ni mu déplacé wu ñëw nii ci bis bi euh, ba loolu jàllee it ma xaw a xaw a gaawal tuuti wax ji nam balaa balaa balaa ndog li di gën a kii euh, sëñ Pape Moussa Thian moom it di kenn ci man daa mel ni mi jotaay ma jàkkaarloog moom nii sëñ Pape Moussa Thian transitaire di euh, di doom sëñ Modou Thian di wëllee sëñ bi di sama wëllee ba ñuy ànd mu mu yàgg lool saa yu ma xewelee mu ñëw daf ci teraangam joo xam ne kenn mënu ko wax maa ngi koy ñaar yàlla yàlla yokk ko mu dégg mu dégg mu euh, ba ay tiitaram yokk lool lool lool lool lool te te te te loo mën ren déwén yàlla na nga mën na ko ëpp fuuf sëñ Pape Moussa bëgg na lool ci euh, ci jotaay ci jotaay bi ci teewaay bi ak sa soxna waaw sa soxna waaw ñu ngi koy sant moom bu baax a baax a baax noonu it lañ santee sa sama njabootu bopp gi ndax dama am ñoo xam ne taxuñoo bari waaye dañ yàlla dafa dog yàlla ma booleek ñoom ñu jébbalu ci man ki ci njëkk mooy sëñ Babacar Ba mi nga mi nga xam ne dafa jël ab taawam tuddee ma ko te xale la mën naa wax ni ay génération lañ waaye dafa jël ab taawam tuddee tuddee ko si Abdoulaat ànd ak moom ñëw ànd ak soxna ànd ànd ak soxnaam ànd ak doomam ànd ak yaayam ànd ak waa caayo ñëpp ñëw maa ngi koy sant bu baax ndax moom laa def jëwin foofa di ko baax jàpp ma ngi alxuraan di gis ci man alxuraan rek ak yaakaar yàlla ci man rek moo ko fi bàyyi kon ñu ngi koy ñaar lépp lu mu mën ren yàlla na ko déwén yàlla na mën du ko mi ngi ànd ak it rakam euh, wala magam Euh, amadu Ñing moom it mu jokk ci man euh, ñu ngi koy sant bu baax ndax ënd na fi teraanga ju bay laataa bis bi ñoom ñaar ku ne ënd na fi teraanga ju bay joo xam ne ay ginaar ak xaalis boo xam ne daal buñ ko doon wax danga nga naan biir te bëgguñ kenn bëgguñ wax ko ànd ak draman champion lit euh, bii nii dimba moo xam ne mu ngi ci làmb ji waaye saa yi bay ñëw tàllal ñu loxo ngir yàlla ñu yaakaar ci ñun ak alxuraan ji kon ñu ngi ñaan yàlla lépp loolu mën ren ngeen mën diwén du ëpp noonu la ñu Euh, kenn ci ñun di suñu mag di suñu xarit ànd ak ñun ba muy ba muy ba daa doonagul daal nii sëñ moo béy kooku moom mention spécial moom moom moom fañ jaa mal ak moom moo tax ndax euh, daf ñoo jàppale ci biir ak ci ci internat bi ndax léeg nga taas oto ñëw nan la moo manqué nga def ko te bu kenn xam bëggul kenn xam daal lu muy def ci daara ji yàgg yàgg yàgg taxawu internat bi nag yàgg taxaw lool moo tax nag man awma bés bii man sax boo xoolee jëluma kàddu ci bis bi ndax kàddu xeeti bis yu mel nii la nga waa wax sax da ngay pet say moom waaw vraiment euh, damaa pet samay vocabulaire mais du mën a ñàkk lu mu mënta ñàkk faw mu am ndax boo waxee di nga di nga am ñoo fàtte te fàtte laay bañ moo tax may xaba yër nii léegi léegi sëñ Mor ñu lay sant bu baax moom moom mooy waajur soxna Daba ak njabootam ñëpp man la leen jox ba léegi xaddiwul ñu koy sant yàlla ñu koy sant bu baax a baax di ñaan lépp lu mu mën ren yàlla na mën diwén lu ko fawxa ndax euh, jàpp gi xam nañ ko baax a baax a baax yëg nañ ko it ci zaahir ak ci baatin waaye it boo gisee ma tàmbalee ci sëñ Mor dama koy bëgg dama ciy bëgg teg soxna Yaasin Njaay mi nga xam ne soxna Yaasin daanaka euh, damay bàyyi rek suñ euh, bàyyi Moodu suñ Moodu wax ci moom ndax fi mu ñu toll ak fi ko liggéey baayam tollu loolu dafa yàgg ba may jàpp bis bi di ko yëgal bàyyi Moodu bay dem ci moom dana ma bu ci lépp luy lekk ci ay ganaar bàyyi ko sama loxo incha allah rabbi la ma ci defoon daaw da koo triplé di dem lépp lu ñu fi lekk ci yu sedd naan wala lu ñuy lekk ci ganaar moom mii ngi moo ko fendi ak baabaka ak ak ak Amadou Ngingue loolu fi gis ñu koy lekk rek kon day yell ñu sant ko bu baax ndax moomu du bàyyi bàyyam lañ lañ lañ dippee internat bi waaye dafa jàpp sama diggante ak moom ak alxuraan bi nga xam ne moo ñu boole kon soxna Yaas ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax. yàlla bàkkeer la def la def la magum lislaam bàkkeer njaboot gi nga fekkee lépp loo mën ren déwén nga mën lu ko ëpp loolu moom euh, damay bañ a incité dinaa bàyyi ñu la sant spécial noonu la ñuy nuyoo it euh, suñu xaajum nga dimbali ma koo gis mu xaw a nëbbatu rek nga wax ma wala ñu dem euh, sëñ Moustapha Sy Kamal ni ma ko waxee dana jël kàddu ngeen dimbali ma rek ndax lépp loo gis rek mi ngi ci jeexit ji te jeexit ji lépp fi la ne te mënoo woote bis ñëw toog nit ñi ñëw ba dem te doo sant ndax lu fi baax ñoo ko defar euh, ñu ngi sant it euh, sëñ Baba Ndaw waaye it sama ñaa euh, sëñ Mansour mi yi nga xam ne ak sëñ Mouhamed Fall mii nga xam ne bis bi ñoo yor lépp muy xale yi di jox xale yi ñu ngi tey macha allah fu ma leen woowee ñu ñëw ñu bàyyi lépp ñëw kon sëñ Mansour Oma see fay ak sëñ Mouhamed Fall sant naa leen bu baax sëñ Mourtada moom lépp lépp mën naa wax lépp moom la waaye xale yi njàng mi lépp moo ko taxaw moo taxawu lépp ak muyit nga xam ne mooy rajo yi macha allah. macha allah ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Abdou Khadir moom mi gis nañ ko fi sant nañ ko bu baax sama ak yëpp maa ngi leen di sant sëñ Fallou sama ak bopp macha allah mention spéciale tajwid boo leen fi dégg maxaay ji xóof boo leen fi dégg xale yi di ko jàng sëñ Fallou moo fa jaar sëñ Fallou sëñ Fallou si Aminata mook sëñ Xaadim mii gis nga de ku la jege sax ma nga ko fàtte maa ngi wax te waxaguma sëñ Xaadim ndax xale yi lu nekk seen bopp mooma kon ci alxuraan kon ñu ngi koy sant moom bu baax a baax a baax a baax a baax ak sëñ Saliou si moom it tabaarakàlla ñun daal sant nañ ñëpp li ñuy def rek mooy daa mel ne maa ngi nuyu it xaytu suñ moo béy bi suñu góor bi ñu ngi koy nii bu baax a baax a baax di nuyu it mbooleem parents d'élèves mbooleem parents d'élèves maa ngi leen nuyu muy góor mi jigéen ndax dañ tey jàpp bu baax soxna yi macha allah kenn ñu des am nañ seen groupe ëttu yaayu daa ji lu ci waay am def ca ñu boole ko lépp taxawal bis bi ngir bëgg bis bi jëm ca kanam kon ñu ngi sant gis nañ xéwal yëpp mbooleem parents d'élèves bàyyiwuñ kenn kenn kenn ñu ngi sant ñëpp commencé ko ci kaw ba ci suuf su ma jëlee euh, euh, sant geeg yëpp teg ko suñu loxo suñ Modou rek suñ Modou Ndiaye mu jàllale ko ci biir groupe bi ñëpp rek day mën a yóbbaale ñëpp kon dañu bañ a guddal kàddu yi di wax ne rek sant nañ bu baax a baax a baax bu ñu continuer mën nañu fàtte wala ñu def wala ñu juum te loolu la ñuy bañ euh, dafa mel ni daal sëñ baabaka moom it di sama di di di doom ci sëñ bi nga xam ne la yeewoo ci kër gi màggee fi jàngee fi defee fi lépp ñu ngi koy sant bu baax Babacar Fall sëñ Moustapha Sy euh, wax naa ko moom laa jiital di suñu mag euh, tubaakàlla yaakaar naa euh, tubaakàlla ñu waa seen sant nañ leen kon ñu jox bàyyi Modou rek sëñ Gumbaan xaa ñu ngi lu baax jotaay bi <laughs> bu ko defee bàyyi Modou nga santal ma rek nga santalaatal ma njaboot bàyyi Modou gi bu ñu noppee décoration bi ñoom ñoo ko moom njaboot gi kii bi kii bi bi su ko defee nga santal ma ñëpp ndax damay lottu ci sant gi sëñ Moustapha si Moustapha Sy Kamal waaw sama xarit sama mag sama bàyyi tudd naa ko baax day am kàddu incha allah bi xanaa ñu jox ko mu sànni rek bàyyi Modou une rek ñu jox la nga ñu jox ko mu sànni ci kàddu yi euh, ak si motoda xanaa xanaa ñu xool nooñu tënki kàddu yi ñu jox ko kenn rek ñu jàlle ko ñu wax ci ñi rendre hommage ñëpp incha allah bu ko fee ñëf dog fee ñëw ngir njabootu sëñ Mouhamad Dem rawatina waa kër sëñ Malick Abdourahim Dem tey nag ñu jël kàddu nag si njaboot si maanaam ci ndégalu sëriñ Moustapha Moussa Abdourahim Dem nga xamante ni bis bi tey dañ ciy rendu ama sëriñ Malick Abdourahim Dem gannaaw loolu nag eh, njaboot si Malick Abdourahim Dem gi yëpp defoon nañu ab délégation bu rëy eh, ba ba ba daal di waajoon bis bi waaye ku ne xam ne ku ne xam ne xat-xat yi jamono moo tax moo tax ñu ànd ak suñu mag suñu xarit suñu lépp muy soxna Aminta Dem di doom ci sëñ Malick Abdourahim Dem di doom si soxna maam Bousso si ñu ànd ak moom di jël kàddu njaboot njaboot sëñ Malick Abdourahim Dem gi nag ñi ngi sant euh, sëñ Abdou Lahad mii parce que lim def rëy na lool mu doon initiative bu rafet lool di si rendre hommage sëñ Malick Dem bi nga xamante ni ci wàllu mbokk suñ ñaari maame ñoo àndoon muy sëñ maalik muy muy muy sëñ muy sëñ Malick Basin si ak sëñ moot Dem ba ba nga nga xamante ni sëñ Modou dem tuddee na doom sëñ sëñ Maali Basin si muy sëñ Maali mi ñuy rendre hommage soxna Faat si mu sëñ Maali Basin euh, nekkoon ci nekkoon ci waa kër sëñ dem waaye nekkoon ci sëñ Abdourahim dem ba am fa ñaar ñu bokk lépp muy sëñ Abdourahim dem ak sëñ Mor dem nga xamante ñoo bokk lépp sëñ Maali nag mu ngi ciy rendre hommage mu doon ku baax. doon koo xamante ni ñun mën nañ ci seede parce que biñ jógee biñ jógee koo tëngëj ci sëñ moo tëngëj ci moom lañu nekkoon mu jàngal ñu dolli ñu yar ñu daal ñu tarbiya mu doon ku baax ñi dippee ko góor yàlla muy doon boroom xam-xam lool te ñu xam ci dara mu doon ku mën a ku am ku mënoon a jaamu yàlla lool bëggoon alxuraan lool fonkoon xasida lool lool mën nañ ci seede bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom yokk leeram rek te taas ñu ci barkeem njaboot gi nag bëgg nañ ci lool ci initiative maanaam si lii nga def si maanaam si Abdou Lahad bëgg nañ ci lool lool lool lool euh, maanaam bi ci wax sax dañ cee lott waaye daal njabootu sëñ Malick Abdourahim Ding yëpp ñi ngi rafetlu lii nga def di ci sant bu baax buñ sañoon nag ñun ñun ñoom buñ sañoon nag ñoom ñëpp a ciy teew waaye comme que suñu mag teew na fi rek te mu te mu bokk ci kër gi muy soxna Aminta dem mel na ni kon njaboot gi yëpp teew nañ fi njaboot gi yëpp tamit ñu ngi lay sant maanaam di la gërëm di wax sëñ Maari Abdourahim Dem yàlla na suñu borom yokk leeram taas ñu si barkeem bi jaay xaadim rasul lii nag gannaaw lii nag euh, mooy alxuraan ji nga nekk boo ci nekkee da nga war a nekk ndaxte sa ndaxte sa maam ju baax ja sëñ sëñ Maali Baas ni si euh, bis mas naa ñëw ci sëñ Tuubaa daal ne ko damaa dégg nit ñi ne dangaa digal ku man ñaari isib ak nisif mu di ko jàng man na bëgg gi ma la bëgg ak xër gi ma xër ci yow moo tax ma ñëw di la ci laaj ndigal sëriñ bi ne loolu daa mel ni for rek dangaa daj borom kon nag loolu am nga ci ndigal waaye nag yemoo ci am ndigal waaye alxuraan yow mayees mayees na la ko sëñ Maalik ne nu ma koy def mu ne ko euh, sëriñ bi ne ko da ngay jàng rek da ngay foo yem rek bu subaa kat dal fee tàmbalee kon nag boo ci nekkee nii ngay nga maanaam te nga yàgg ci nekk yow da ngaa wàccul yoon wa kon ñu ngi lay ñaanal si ablaat kon suñu borom guddal sa fan wara say cër ba bis bii saa bu ñëwee rek yàlla na gën a yokk alxuraan nag. nit waajur yi nag war nañoo xolaat ci lii parce que alxuraan mooy lépp comme comme ni ko comme ni ko Sëñ Tuubaa waxee rek ci masaalikul jinaan waaye suma yu bas minu sabi yaktubu lahu wa waalidayhi wa liman yuallim baraata naari faltax na moom bépp bépp bépp waajur boo xam ne jël na ak doomam jëm jébbal ko ca daara ja sëriñ sëriñ daara ba ak ñaari waajuram ak xale bi yëpp seen yaram araam na sawara moo ma jox ndigal pour ma wax ci turu njaboot bi di leen nuyu ci turu Cheikh Mamadou Moustapha Sy si nga xamante ni mooy waajuru sëñ Abdou Lahad Sy nga xam ne moom it moog Alaaji moor daanaka bu fi nekkee kàddoom rek doyoon na ndax mën naa waxal Alaaji moor ndax boog Alaaji Mor benn lañu moom mii moo yëkkati woon Alaaji moo yëgoon sëñ Abdou si Sy te ku ci loxo Alaaji moor ndax Alaaji Mor li sëñ bee doon wax léegi ci la nekk moom ba bi mu fiy jóge day jàng day jàng rek waaw moom moom ba day jàng ba ni mu fiy jógee ba bis bi muy dem. sëñ Abdoulaye mii dafa ñëwoon di ko jàngal bi mu fiy jógee di dem nga xam ne day dem ca hôpital ba sëñ Abdoulaye mii dafa ñëwoon doon ko jàngal si kon kooku ca li lii sëñ bii doon wax ca la nekkoon te loolee mu nekkoon ñu bari jaar nañ di ko jàngal waaye bi mu taxee teg sëñ Modou si mi dana ko yow sa alxuraan doy na ma loolu ko doyoon nag ca la nekk ba nga xamante ni bii ci mujjëm ci loolee la nekk loolu moo tax sëñ bii nga xamante ni bii sëñ Abdoulaye ku baax ku gore baax la ku gore la bëgg lu baax la moo tax bi mu demee xamante ni bi moom alxuraan la te mënta génn alxuraan léppam alxuraan la mu taxawal daara ji bi mu ko taxawalee mënoon na koo tuddee sëñ sëñ sëñ Moustapha Sy bu boobaa it benn lay doon ci ñun bu ko tuddee woon sëñ maamam it benn lay doon ci ñun ku tuddee woon ku tuddee woon rek benn lay doon ci ñun bu ko tuddee woon xasaat benn lay doon ci ñun waaye mu seet tudd Alaaji Motaala Njaay tudde ko ko loolee ak mbaax la ak lu bàyyam def ci moom ak xalaat bu rafet moo tax mu def loolu loolee réer na ci ñun ndax lii mu def ñoo ko waroon def mu defal ñu ko def gi ko defee nag ñu ciy sant di ci gërëm ñu man jon nee na amuñu sa fay li nga mi ngi lay ñaanal di gudd gi fan wér gi yaram di ñaan lii nga fi saxal ba waa quartier geeg ñëpp gis ci seen bopp ndax chef de quartier bi wax léegi ñu ngi koy nuyu moom it baax la moom it ku baax a baax la li mu wax it lu rafet la ndax lu mel nii ku ñu ko def ci quartier am defal nañ la loo xamante ni ku ko def amoo payam kon nag dañ lay ñaan rek yàlla guddal sa fan njaboot njabootu àllaaji góor ñi ñëpp ñëpp ñëpp ànd nañu di sant di la gërëm di ñaan nga yàgg fi te lii ngay def kawe njot comme comme euh, dog jot na dañ koy gàttal rek waaye na xam ne daal képp ku fi ne rek njabootu àll moo sant na la ci dikk yi nga fi dikk ñaanal nañ la bu déwénee ngeen teewaat fi ànd ak wér ak kattan ak xéewal yu bëree bari bari di jaay Cheikh Maram air bi ñu duggit air senegal bii ñu dugg nga xam ne dañ ci dogg a duggit yàlla def ci taw féex ba ñëpp gis seen bopp ñu liggéeyal ci sëñ Tuubaa gën gaa seen liggéey ñu ngi sant bu baax tey gërëm jërëjëf. Serigne Moustapha Kamal ndaw ñu lay siyaar bu baax sëñ Fallou Ndiir ahlu xasaayid yëpp ñu ngi leen di ndax ñu bari sama tuulam fi tere kii mooy Alxaaji Njaay moo taala Njaay Lambaay mooy pare nu daara ji de ak Alxuraan rek la mës a bëgg ak dimbali gaa yu baax yi sëriñ moo taala njaay làmbaay la de daara ji ku fi ñëw xam ne moom la nga dubbe insha allahu taala jàmm rek fi xew suñu ko sedd na lii sëriñ Modou Njaay lii rafet na photo bi dama frappé jiili photo bi frappé na ma de mënatuma dem jiili photo bi frappé na ma de mënatuma dem dem de photo bi frappé na ma wallahi jii li ñëwal jëmm ju baax la de alaaji làmbaay sox Babacar car nga njaay sëriñ Mor ma na may na may si xali Juuf làmbaay i de ko daa sëriñ Babacar car nga njaay sëriñ Mor ma na may si xali Juuf làmbaay mi de ko daa sëriñ Babacar car nga njaay Sëriñ Mor Maana Mbay Cheikh Aliou Diouf Lambaay mi ne ko daan Alaaji Mor Talla Njaay Lambaay alxuraan rek ko ñoroon ak lu baax rek ko ñoroon Alaaji Mor Talla Njaay Lambaay ba ngeen gis Murid Sadiq mi ngi nii ba ngeen gis ku taw tawee loolu xam daw denc dara mu ngi ngeen gis ku xam ne bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg Sëriñ Tuubaa ak doomi Sëriñ Tuubaa yi mi ngi nii waaw mu ngi ngeen gis ko xam ne ni gannaawam mu gën a rëy mi ngi nii gannaawam mu joxe addi ay million ubbi ci daara gannaawam daara ji barkeele nii arxaan ji dox te gannaawam la ko def te moo ko def te xam bi muy dem xam na ne bàyyi na fi daara xam na ko ndax keroog rek suñu ma waxoon na ko léegi bi muy dem suñu suñu laa dem di jàngale ji di ko jàngale yi yow mi ne ko doon jàngale yi doon jàng alaaji moor génn dem oto bi si Sëñ Abdou Lahad mi ngi ak payam di ko jox mu ne ko déedéet xam ngeen kii mooy asgor kii mu bëggee alxuraan kii bëgg Sëñ Tuubaa waaye bis ni ko tey du ko ko de lépp fekk na ko mu nekk doomam jii di Yaasin Njaay di yéen góor la taxaw na jonn daara ji bu sam bëgg naaw yàlla moom la ana Yacine Ndiaye soxna Yacine Ndiaye dem na waaw mu ngoog sant nañ ko lool jant ko amul ab waay waaw soxna mooy lépp rek di waaw léegi nag xam nga dañuy naan dañu naan dañu naan dañu naan suñu Modou waaye suñu Modou leeral ko léegi ngumbaan jonn ma kilifa gi man xam naa ci dara Baye bi fi nekk Ngumbaan la jiital ci lépp Ngumbaan mooy kër gi Ngumbaan mooy moo lë ma dégg Alaaji moo moom la gërëm ñoom na ñoo ñoo suñu wóodu ay suñu wóodu moom Ngumbaan lay wax kon c'est bon rek Ngumbaan jërëjëf waaw eh, jotaay bi am na solo ndax xasida yi jolli na fi gannaaw bi Alxuraan jollee kon jotaay bi suñu tuwaay dëgg mooy jotaay bii maa ngi ñaan képp ku fi teew rawatina ndaw yi ma gis nii borom karaw yu ñuul yi kenn ku ci ak mag ñi ñëpp yàlla yàlla fa seen aajo barke Xaadimu Rasuul barke Alxuraan Karim barke mu waay bu naa fi kenn ku ne ci yéen la ko jaaxal ci ay yaramam ci wéeradi yàlla ko yàlla saafaraal ku yéen bëgg xam ngeen naa la ñaanal ndax fii laa am amul lu dul sëñ Tuubaa amul lu dul yàlla amul lu dul yonent bi amul amul sama njaboot gi bi ñëw jàppale ma ci nii bi sëñ laat bi nii xam nga yéen ne ne lépp mu am Sëñ Tuubaa da am lépp lu am Sëñ Tuubaa da ngeen ci am te man de am naa Sëñ ndax seer si mooy Sëñ Tuubaa kenn yu dunti yor dara am di joxulu ko te kon nag bu ñu wootee Sëñ Tuubaa gi teewee dalek Sëñ Abdou Lahad maay to maay wax kàddu gi ñuy di ma déglu te loolu sama njàmbaar baaxu Sëñ Tuubaa la ak cër Sëñ Tuubaa la kon maa ñaan ci barkeb cër boobu yi yéen ñii sëñ Mourtala sëñ Moustapha sëñ Saaliw bar Baye Fall bar mu saq bi sëñ ñëpp bàyyi ma xam ak dégg nga ba ci ba ci murit ba ci xaadim murit sëñ Mourtala sëñ ab sëñ ab xaadir bàyyi ma kenn sëñ Ngëmbaan Joon sëñ Modou Ndiaye ak njabootam sëñ Mbaan ak njabootam ak ak taalib sëñ Abdou Karim baax bee nga xam ne nii yaa mu wut sama njaboot gi yaa mu wut ci ñoom day def loo mënut waaye yàlla yàlla fay loolu la jomb ak Sëriñ Tuubaa ak jànkat doon jàng xasida yi léegi ak borom mbaxana ma borom yar yi bàyyuma kenn ak taalibe Sëriñ Abdou Lahad yee yàlla ñu dem bañ mbooloo doon ay jëwriñ ay daayira ngeen jiite leen am ngeen sëriñ ndax ab sëriñ mi ngi nii ndax maam Maharam Mbàkke mooy maamam daf si dem bunna mooy maamam kon loolu jërut di ko wax di ko lim léegi kon tey itam yàqut waaru yi alxuraan lañ ko jàngal ba mokkal ko mu di jàngaloo tubaab mu mu dégg ndigal mu dem bu jàgg mu jaxsoog wàllu yu wàllu yu laay alaaj moo taal jaay lambay mu wàllu ko baax waaw mu jaxsoog wàllu yu yàlla senteeg muy jeexal ba su nga waaju baax buy jeexal ku ko jegee mu mu kii mu jàll kii la mu fal la ma yaa deseen alaaj moo ci xam man jàngal naa alaaj moo jàngal naa ko yow yaa deseen teg jeexal bu moo tax moo tax mu sëf la waaw sant yàlla bu baax te li nga yor les alaaj moo jox kenn mënu ci dara ba abadan la alaaji moo dafa liggéeyal yàlla am ngërëmul yàlla fees dell nga seen teeg muy jeexal ngërëm liggéey mu ngërëm la moo tax boole laa loo xam ne nii ba abadan bu taxal ko moom insha allah maa la wax ah maa la ko wax waaw xam naa loolu tuy na añ fi nañ ah ah mhm. Mhm. day am loolu loolu sa ñii alaaji moo daan defal ay kër jox ay nit ay nii te ay alaaji moom ñoom ñoom ñoom ñoo koy def ñoom ñii nii ñoom ñii nii ngimbaana ngi nii ma jóorin bi moo koy def mooy ànd ak njaboot gi def ko man xam na xam naa leen dégg nga seen baay daan def loolu man sax nee na boo rajoon rek bu ma kër yi dama kër bu yàgg kon nag léegi nag kon rawatina kii léegi si ñoom la saxel dal yàlla boo leen laag ay ay ay doomi alaaji moo alaaji Mor te ñam seen baay rek ma leen ñor xam ne seen baay ñoroon nga seen baay moo tax ñor nga leen ne xalaat na rek mën na saxel dal waaw sëñ Modou Ndiaye mii as gor la ab jullit la gumaane kilifaam nag dañ xam loolu bi tey nañ kilifa yi mooy nekk nii waaw sëñ naa san kana ñëw na ci bi dégg nga soxna Aminta nañ ko soxna gërëm nañ ko nga man sama waa kër yëpp leen soxna Roqay Sow ñu Mourtala eh, sëñ Abdou Karim jërëjëf ci taxawaay bi digg na alxuraan bi sama dem la laa tuddee sëñ Abdou Karim moo tax waayam jee ñu taxaw jonn sëñ Abdou Karim moom daa am ful la loo ko foog laal mu laal la fa moo tax waaye ñu ñëw dugg ci biir sax mbir taxaw sama njaboot gi waaw <laughs> kon nag jërëjëf di guddi na waaw aousbillah mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim allahum jërëjëf yéen jëm ñoo ala sirat almustaqim wa bisahin kullana bila saqim laka xitaabi ya qaribu ya mujib ya man bihi la samani xayru ajib habli walillasina qad taallaqu biyahudan bihi li xayrin watalaqu iyyaka nahbudu wa nastahinu fa innaka almahbudu walmuhinu دلتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينهول كل نقيب يا تسخيرات المستقيم حبلنا ودا به يخبتنا من قبلنا يا تسخيرات المستقيم حبلنا ردا به يخبتنا من قبلنا يا تسخيرات المستقيم حبلنا قنا به يخبتنا من قبلنا وهب لنا سرية تديم العمل الصالح يا قديم سرية طيبة تجدد نجى النبي المصطفى تجتهد وهب لنا النور على النورين وليها أبصار الدارين اللهم صل على سيدنا خادم جرجف